nii baayam defoon ba nag Abdou Diouf ba am doole ba ñëw daane ko est-ce que loolu nekku ci xelam Idriss opposition bi mu di liggéey ni opposition lañ mais bëgguñu ko dañ ko bañ ndax mooy chef de l'opposition bi taw ku jóg ni intéressé wuñu waruñ koo joxe war koo nekk yow kii nga àndal di xeex yow bëgg yéenewu ko dara ti moo la raw ëpp la doole moo xam ne ñii du ñaay àndandoo déglu fi may waxee ñam bokkaloon xeex bi. ci mhm. terrain bi ñu ci ëpp ñëpp bi ñu déggee di milliards ay milliards de nekk ci statut chef de l'opposition seen biir yi commencé daw seen xol yi commencé but à gaz. <laughs> mais maître kañaan dugg leen lu ma rek damay développé damay damay analyse. Mhm. ñim nekkaloon ñu àndandoo di di wax ci opposition ku ci wax rek d'accord ci mu nekk chef de l'opposition est-ce que kon moom toog foofu ak ñoom. est-ce que toogul ak ay noonam ku ne nag wax na ci te Idi du dof de Idi du dof. mais bu fekkee moom dafa am lu mu bëgg tey ji ba dugg ci gouvernement bi lan moo war a nekk tey ji posture du président de la république alors dans ce ci laa jëm si nag bu yàkkamti xam nga ñoom ñaar dañoo bokk ay ween yu ñoom ñoo namp ween. de la famille libérale. xam nga ñi nga xam ne mosu ñoo politique tëb ne dañuy dugg ci terrain politique. am nañ problème maçon politique sa bureau climatisé nga naan nekk ñu dàqale rek sa place nga bëgg nekk politicien. mais dafa mel dafa am ñooy waxal. non tudduma kenn damay wax rek. Hmm. dafa am ñoo xam ne Sénégal yi ni jay ba ñu foog ne ginaar yu bëgg a sax ay ay béjjén fekk fa ay ponkal Macky Sall ko waxee da ngaa dof fii la fekk ñu ne la ñooy chef de l'opposition ñan ñaar la ñu waxoon Moustapha Niass Tanor Dieng. Hmm. ñu les les patrons. des assises nationales ñu dem élection 2009 ñu gagné presque mairie yëpp Sénégal PS ak AFP séddoo ko Kaolack Badiane Diouf AFP Dakar PS Khalifa Sall Cheikh Bamba Dièye Saint-Louis ah daanaka Ousmane Masseck Ndiaye yàlla ko yàlla yërëm. Hmm. Diourbel Jacques Bodé ñëwaat na nga ko waat ci Aminata Tall PDS fii Pape Diop daanu déjà booba sen benn cycle Sénégal boobu dafar def razzia ci élection locale parce que ñoom ñoo doon incarne de l'opposition Macky Sall xëy na deux mairie xuma benn mairie la amoon defe naa mairie de Fatick rek la amoon. Mhm. walla beneen benn en tout cas bëri la toon ba muy suga ñëw di bokk bennoo amul benn député ndax député yi xawoon nañ ko yegee sax daq nañ leen mais Moustapha Cissé Lo ak May Ndiaye. Mhm. mais Macky Sall boobu moo doon chef de l'opposition ñu ñu dañ ko bëggoon boulevard bu nekk président. non est-ce que mos Macky Sall boo doon jite xeex xeex bi terrain bi moo doon xataraayu comme booy waxees boobu lu ñëw mu jite ko di xeex di jaay doon jàmbaarisme ñoo ñoo nekkoon est-ce que Macky Sall doon na def loolu mais histoire lu nekk si leçon wala histoire léegi professeur d'histoire yi ñoom lu ñuy fi jëriñ ñu supprimer seen matière mais c'est que léegi dina <laughs> aj man dama jommi parce que man yàgg xëy na sama dund yàggul lool de mais ko làq juróom fukki juróom mel fukki at am na yu bëri yoo fekkee gis naa ñu gënoon fi radicalisé comme ay Massoud jóob ay Babacar Sané ay Mamadou Dia sax bi mu ñibbisee parce que bi mu ñibbisee reprendre na politique bi dem élection 1983 Mamadou Dia dem na. man ne 83 Mamadou Dia laa wateel. ñun waa LD ak Babacar Sané. ñu gis yi doon ñafe ay Massoud Diop kenn ci ñoom mënul am 1 pour cent. est-ce que kon Sénégal gën fee rëy làmmiñ gën fee jaay jëriye tax na nga gañe élection élection ñu koy gañe mooy parti de masse moo tax parti de gauche di sawaa ne ngi oote mais duñ mës a dem fenn parce que foofu laa commencé